assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno samba maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni sa internautes yi seetaan émission yi nga xamante ni mi ngi jaar ci koor gi fa tabarakallahu di ndokkeel ñëpp di ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole nongul julit yëpp bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw kay fa tabarakallahu comme ni nga xamante ni noonu lañ ko xamee sunnay koor dafa nekk loo xamante ni julit bi war na cee war na cee bàyyi xel bu baax liñ ci njëkk a wax mooy xëdd ndax xëdd sunna la ci yenent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax yurmaande bi nga xamante ni moom la am ci xeetam wi mu ni tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax dafa am barke donte sax da nga jël ñetti tàndarma wala nga naan guuxu ndox loolu baax na ci nit ki mu def ko te bokk na ci sunna yi tamit mooy doo teel a xëdd mooy am na ñoo xamante ni balaa ñuy tëdd la ñuy xëdd loolu tuddul xëdd eh, loolu xëy na ñu tuddee ko mbëstan wala xam leneen waaye bu dee ni eh, waxtu fajar bi des na 10 minutes rek nga arrêté lolu digënté bobu nag lu ko jitu nga lek bala waxtu fajar bi di jot parce que kenn du bàyyi ba fajar bi jot ngay lek amna ñu bari ñoo xamanteni ni faale nii la hawla wala quwwata illa billah ñoom ñu bàyyi ba dégg imam bilal bi di salatu te fekk na bobu fajar xarna ba pare waxtu woowu kenn du ci lek moy da ngay téla bàyyi bala ñuy salatu minimum 5 minutes minimum cinq boo defee dix minutes nag moom mooy gën a wóor nga xamante ni day fekk na boobu eh, pare nga li ngay lekk borosu nga te waxtu wi du jotagum bu fajar si di xar fekk na yow dugg nga ci koor gi ba pare loolu bokk na ci eh, li ñuy tuddee sunnay koor eh, sunnay koor tamit bokk na ci soccu waaye socc bi nag li gën mooy nga socc diggante fajar ba zawal ba tisbaar di jot diggante boobu euh, soppuñu trop nit ki di soccu gannaaw bu tisbaar paase ndax foofu xeetu gémmiñam bi dafay commencé di changer ndax ñàkk lekk gi mu ñàkk lekk ak ñàkk naan gi mu ñàkk naan te borom bi subhanahu wa taala moo ni gi nga xamante ni moom la woo aji koor ji di am moo ko gënal moom yàlla subhanahu wa taala xetu misk ak li muy neex neex yëpp te misk xam ngeen ni am na ci مسكو بو خامتاني يالا سبحانه وتعالى منكو واجال و تي خط يننت يالا محمد صلى الله عليه وسلم الى بوكو آه، خط بوغ لمي نيه نيه نيه يالا خطو گيم نيو ادي كوردي موكو گنال ليسان سما خيل ميغي ديم تي آية وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وإتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة مفسرون يأمنتي نوحني yàlla dafa waxoon nabiyullahi Moussa mu woor fanweeri fan ngir daje ak moom Moussa bi mu wooree fanweeri fan yi rek mu daal di yëg ci xetu gémmiñam gi ni soppeeku na day ndeysaan mu daal di jël soccu soccu xam nga moom boroom kàttan la woon bëgg a dajeeg yàlla yàlla ni ko dama nga dolliwaat ci yeneen fukki fan te bul soccu ndax xet gi moo ma gënal am na ci mu fassiruna yi ñu wax loolu ñu ni moo tax yàlla jox ko tegal ko ci yeneen fukki fan kon gannaaw julli tisbaar wala lu jiitu julli tisbaar tuuti rek nañ jullit bi arrêté socc bi bokk na ci tamit eh, di dogee lu tooy dogee lu tooy loolu sunna la ci ci sunnay koor waaye bokk na ci sunnay koor tamit jàng alquran ndax ci alquran yàlla mi ngi ko wàccee ci weeru koor xam nga kon dafay jaadu ñu wax ni julit bi muy bokk na ci sunnay koor muy jàng alquran lu bari loolu nag moom yàlla defal nañ ci suñu réew mi ndam bu rëy rëy rëy rëy rëy eh, que nit ñi dañ ci wàccee kaamilu alquran yi ba sax ñu bari ci la ñu daan def tafsirul quran donte waruñu ko yemale ci weeru koor bi rek daara yi nag ñoom alhamdulilah ñu ngi tafsir alquran bi ci lu dul weeru koor bi bokk na ci tamit sunnay koor def li ñu tuddee i'tikaaf i'tikaaf mooy sax ci jàkka rawatina nag jumaa ndax xam nga boo nekkee di i'tikaaf mooy fukki fan yu mujj yi ci ngay nekk ci biir jàkka ji lëlu doo génn eh, moo tax ñu bëgg mu nekk foo xamante ni jumaa la xamante ni julli jumaa ji daf lay fekk ci biir i'tikaaf bi doo génn dem feneen di julli ji waaye dangay julli ci juma ji moo tax itikaaf dafa bokk ci sunnay mm, sunnay sunnay koor yonent yàlla muhammadin alayhi salatu wasalam eh, jàngale na xeetam wi lépp li nga xamante ni lu yóbbu nit ki ci mu gën a jege yàlla subhanahu wa taala ren nag alhamdulillahi rabbil alamin itikaaf bi ñu ngi koy defee ci kër yi lu tax ndaxte لا حول ولا قوة إلا بالله فيبر بو بون بي nga xamanteni ni ñëw na ci réew mi war na mën yóbbu nit ñi kër nga ñu dugg xalwa ñu def i'tikaf ci seen kër yi mooy sax ci jaamu yàlla parce que i'tikaf amul leneen lu dul jaamu yàlla zikr jàng alquran waaw xataa si soxna sax doo jaxasoo ak moom yëpp ci sunnay julli la bokk taba ci sunnay koor la bokk fa tabaraka allah ahsan su ko defee euh, beneen masala bi nga xamante ni ci la ñuy ñëw mooy lan moo gën a baax ci lu ñuy doge bu ngeen seetloo sax tudd naa ko ci biir waxtaan bi mooy doge lu tooy lu tooy nag bokk na ci ndox bokk na ci tàndarma li gën mooy nit ki dog balaa muy julli timis bu dee tàndarma la mu nekk tàndarma bu tóol benn ñett juróom juróom ñaar ba ci juróom ñeent jëm kaw waaye daal na tóol bokk na ci e, nit ki bu dee dog ñu bàyyiloo xel ñu bari waxtu dog bi mooy waxtu timis nit di dog mukk feek timis jotul suñ ne ñi ngi julli timis 19 heures 28 yow nga dog 19 heures 27 amoo koor une minute boobu bu ko xeet ci waxtu wi la bokk mën na tere jant bi so te loolu noonu ñi koy joxe dañuy natt waxtu wi ni telle heure moom la jant bi di so su dee 28 lay so ça veut vingt que 27 so soogul su dee kuy xool ci ay montre la wala ay nangam ak nangam daf la war a wóor ni jant bi sona mooy da nga ciy teg deux minutes wala trois minutes nga soog a dog buñ nee te li gën a yéeme mooy da ngay seetaan ci yenn chaînes yi télé yi ñu joxe heure coucher du soleil météo ñu ni telle heure la coucher du soleil muy c'est-à-dire 19h27 wala 19h28 ñoom ñu joxe loolu nga gis 19 heures 26 ñu joxe heure dogu yàq nañ kooru jullit yi ko defee loolu nañ ci bàyyi xel ci gën lu ñuy dogee lu tooy la bokk na ci lu tooy loolu tàndarma tant c'est-à-dire bu tooy wala ndox mu ñuul wala ndox mu ñuul c'est-à-dire moo xamante ni amul dara du jus du bisaab du euh, leneen cest à du ataaya du café du nangam ndox mu ñuul c'est-à-dire ndox mu عندهم الماء الطاهر الماء الماء الطاهر عندهم ست ملاب ما حمان تاني مم غي ديك دوغال سي سبير لولو بوكنا تي ليغا حمان تاني مم لاني مم لاني غنا آه، باري لو ني دوغي كو حمان تاني ناك مونو نياكا نان كافي نغا نان كافي باسكو لول تامي دو ياك دو ياك كورغي داني واخ نك ني مو غن وا آه، مي كو حام كو حمان تاني امغا تاندرما غا جيل تاندرما مو غن مو امول تاندرما غا bu amul ndox amoo tàndarma kafe nga am nga jël sa kafe bu amul café bisaab nga am nga jël sa bisaab boo lekkee ba pare nag nga daal boo dogee ba pare boo dogee ba pare laa wax dama jum wax lekk boo dogee ba pare nga julli daal di lan laa jublu ci boo doggee ba pare nga julli mooy diggante dog bi ak julli bi mun na nekk une minute wala mun na nekk deux minutes mais pas nga toog ndogu ba sa biir fees ba suur soog a jóg dem julli ji fekk nga muxtaar bi muxtaaru timis bi dem na yoonam تي طيب، مختار تيميس بدو لاخر باسكو داني واخني للصلاه آه، المغربي استادي جولي تيميس آه، مختارا موي قدر ما يصلى عليه كامو لي غاي جولي جولي تيميس بي فافلا فافلا مختار بي يم كون امول كين امول دروا توك جيل سمبرو ساندويتش كو جيل سا كاس ديف تي كافي اك ميو lekk ko ba mu jeex naan sa kaas naan sa ndox jóg soog a dem jàppi dem julli ji ñu teewlu eh, li nga xamante ni mooy koor gi teewlu waxtu yi nga xamante ni ci la ñu war a dog ñu bàyyi ba heure bi jot ñu soog koo ñu soog koo jël te buñ ko jëlee ci saasi rek eh, nañu nañu jël tàndarma daal di dem daal di dem eh, dogi incha allahu taala bu ñu dogee pare rek ñu dem julli loolu mooy li nga xamante ni loolu mooy gën أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته